yaa ngi Feeling Dakar. bu yàlla sunu boroom may leer donc moo tax ñu sant na alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax. sant yàlla bu baax waaw bu baax ki nga xam ne mooy sama kilifa mooy sama bunt ci kër Cheikh Modou Bamba Khadimou Rassoul mooy Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni xam nañu ne kilifa wante maam doom. salaamaaleykum waa adduna salaamaaleykum waa Sénégal kii nag ku ko gis xam ni mooy soxna si Kara Mbodj ndax ku gis ni mu yànjee nii ak ni mu naayee ànd ak mbégte ngeen xam ni tey mbégte rek la àndal soxna Fatou ñu doon laaj tey noo gisee seen bis bi ak Kara mi nga xam ni tey moo waral lépp yow moom ak seen gan gi gan si leen nii. man moom franchement kontaan naa trop si bis bi. tamit maa ngi remercier sëñ Modou Kara déplacement bu mu def. ndeysaan moo tuddoon sama jëkkër tey mu ñëw tudd te maa ngi ko ciy oh. bi ñëw na na bés def nañ ci liñ ci war a def yëpp ñu kontaan nag ci sëñ Modou Kara mhm. Barke Noreyni. ndeysaan ak teewaayam ci bés bi. ndeysaan ñu ko ci sant di ko ci gërëm. ndeysaan dooli sant yàlla. dëgg la ndax li ñu am nit rëy na. dëgg la rëy na torop kontaan nañ torop nag. ndeysaan gërëm sant ñëpp. ndeysaan gërëm sama rakk bi. ndeysaan yàlla bàyyi ko ci sëy bi. amiin yàlla bu mu gis bu mu ragal. amiin yàlla bàyyi ko ci boole ko jëkkëram ji boole ko jàmm yàgg. topp tànki baayam ak tànki maamam rek. ñu ko mm. sëñ bi waxee ci taalif bi démb. dëgg la waaw defe naa ci sa kanam la. sama kanam la woon mm-hmm. dañ koy ñaanal rek gudd fan ak wér. amiin moo am ndey ak baay ak i maam. dëgg la waaw def ko muy magum lislaam lan lañ koy ñaanal. dëgg la Mbàkke dañu ñaanal nag ñun. yow sëñ bi la ñaanal démb. waa sëñ bi ñaanal na ma waaye yow yi nga yor man xam naa ci dara. <laughs> la fasaale bu baax. waaw fasaale mu baax a baax a baax. nañ laa ko ci ginnaaw sëñ bi rek. dëgg la. tabaarakallah yàlla na yàlla guddal fanam. amiin amiin jërëjëf sëñ bi. ngob làkk fu yàq yeegul. dëgg la di ñaan tamit Kara lépp lu mu sumb yàlla ko sumb la ñu yegale ci. amiin yaa rabbi amiin amiin amiin alhamdulilah rabbi alamin amiin gën ko booleeg soxnaam Seydi Fa Fatou Mbaye. dëgg la waaw moom tamit yàqu ci dara. a gën a boole. dëgg la gën a jubóole ci dara jay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñu gën ci am ay ay naaru góor ay fuutànke yu bëree bëri. ñu bokk gën a dundal seetu Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Kara Mbodj yàlla la yàlla defal jàmm. amiin rek yàlla na fi yëngu yàlla fekk. amiin Seydina Muhammad sallallahu alayhi sëñ Modou Kara Noreyni mi déplacé wu ñëw neen mooy tudd doom ji waaw Kara am lu rëy tudd bàyyi tudd doom dëgg la ah, te Kara Mbodj moom fu ñu jaar wax moom moom ne xam nga dafa ko ñaanal yàlla rek borom xolu jamaale xam nga xam ne bëggul kenn mer dëgg la am sutura sooy wër nit ko am sutura rek jàppal Kara Mbodj dëgg la xadimul xadim dëgg la waaw dama koy yàlla suñu borom di ñaanal encore suñu bébé bi ah yàlla dund dund am ndey ak bàyyi ah dëgg la yàlla ko yàlla ko cat seexlu dëgg la suñu bopp Amen. Dans deux petites secondes, je, prends, je vais prendre. Ouais. Thank you. waa ah, gis ngeen soxna Kara Mbodje gi nii yor doomam di ko jébbal sëñ bi soxna Kara Mbodje gi nii moo uuf doom bi nii jox ko sëñ bi waaw turu turu ñaari Aram. turu ñaari bi tudde turu ñaari maam waaye mën nañ wooyee Aram. mooy Aram na ko Mbacke Aram turu ñaari maam yi waaye nee mën nañ koo wooyee Aram. Mbacke Aram. kii mooy yaayu soxna Kara kii mooy yaayam

turu ñaari la ko la ko tuddee. nee turu ñaari maam kon tuddee na ko Mbacke Aram turu ñaari maam yi waaye nee na mën nañ koo woowee Aram. Mbacke Aram. soxna Karam boo jógee nii moo uuf doom bi ñuy jox ko sëñ bi waaw. jërëjëf Mbacke maa ngi fi jëf sëñ Cheikh na kay tey sëñ Axma maa ngi ci jàmm jaajëf teeti Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni jërëjëf teeti Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni jërëjëf teeti Cheikh Ahmadou Kara Mbacké